ware Sarr mu xolam jeex moo doon wax ak sañu naataango yu presse Afrique di leen xamal di waral mu jël dogal tekki ndombal tànkam ci biir parti démocratique sénégalais député libéral bi nee na dañ ko kompaloo fexeel ko te teef bi nekk loon lu dul jëlee ko ci bopp fédération nationale des femmes du PDS teg fa kii di faatu Sow ka muy joxoñ baaraamu tuuma nag du kenn kuddul Karim Wade doomu maître Abdoulaye Wade ndax li mu mooy génne ko ci rang wu parti démocratique sénégalais parti boo xam ne def na fa lu tollook fukki at ak ñaar daj fa lu ne dégg fa lu ne taxul mu xaddi benn yoon woore sax li ko metti mooy ni ñu ko jëlee sa boobule poste teg fa kii di Fatou Sow te defuñu élection ñaar fukki doomu aadama ak ñett ñoo sampoon seen nënd bëgg a jiite boobule fédération bu ñu sukkandiko ci waree Sarr muy xam la ne nag ñi ko doon fexeel defuñu togg nañu bu baax a baax seen pexe ndax ba ñu defee njàngat xam ne bu ñu demee élection moom waree Sarr mooy jël raw gàddu gi ndax moo leen ëpp ay délégué foofu Sénégal gi wërngal këpp la ñu dellu gannaaw dem nag waxi ja Karim Wade ci la Karim ñëw nag defay mbiram tëddali pexem yeesalaat instance su bile parti te jaaralew ko ci jalgati yoon ndax du lu la ñu waroon defee mbir yi man dama jàpp ni dañoo waroon def yëfi jaarale ko si élection Karim yëgalu ma dara dafa def rek lu ko neex du Abdoulaye Wade Karim moo def lu ni mel Abdoulaye Wade xaatimul benn yoon yëfi may wax nag ñu teg ma si poste présidente d'honneur mu mel ni nekkatuma si langue politique gi lu ne mel du dëgg du yoon seen bébét moo nekkoon génne ma si parti bi rek. Woré Sarr nee na ngorom mayu ko woon mu des ci biir parti démocratique sénégalais te xam na ni bu doon rek maître Abdoulaye Wade kenn du ko toroxal sii anam fukki at ak ñaar laa def si bile parti ma toog jamono goo xam ne ñu bëri gedd nañ xooli leneen may muñ rek gëm li ma gëm lu di lay wadd wax ma ànd seeg moom ba si sax élection yu weesu rek dama ne lu Wade jël ni dogal lu ni mel laa nar a jëfee tey ji xoolal nii nañ ma sacrifié tekki nag bi mu tekki ndombal tànkam si biir parti démocratique sénégalais boo moyul waree sax dina ñàkk mandaawam sa assemblée nationale ndax li code électoral wax dafa leer nañ bépp député bu tekki ndombal tànkam si biir parteem dafay ñàkk siège am si pencum ndaw réew mi.